koo xam ne dafa wàcc suñu kaw bilia muy euh, décès Mame Less Camara Mame Camara di sunu doyen euh, ñu ci bëri ci ñun jàngal nga leen man moo nekkoon sama prof rajo euh, nekkoon sesti nekkoon ci rédaction yi vraiment ufoon xale yi bu baax a baax a baax moo génn àdduna nag tey ji ci suba muy nouvelle bu tiis ndax journaliste bu baaxoon la bu mënoon li muy def mais bu amoon générosité bu baax ci partage xam-xamam xale yi ku ci nekk taataan nga ci moom kon dañ koy ñaanal yàlla na ko xaare yàlla xaare aljanna allahumma amin mu mel ni nag euh, amin di ko ñaan fekkee mm-hmm. toroxal gi ñuy toroxal njabootam gi xanaa moo moo tax mu dëddu ndax wax dëgg yàlla noonu la bëggee woon journaliste yi rawatina ñu ndaw ñëpp la uufoon wàccee boppam di kaf ak ñëpp di reew ak lu la neex nga wax ko mosuma kaa gis mu mel yaatal geek euh, nangu woon joxe xam-xam bi rek euh, amuñu woon fay ci moom kon donc dañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana te fa jëm gënal ko fi mu jugee ah, di ñaanal yàlla teg loxo rek njabootam ba ñu mën a dégg lii rek te xam ni ñun ñëpp dañuy dem hmm. euh, ku nekk sa bis rek waaye ñun ñëpp dinañ dem ndax euh, ko fa jóge rek moo fay dellu hmm. waaw di di di ko ñaanal rek rabbal alamin mhm. vraiment marqué te mastawu presse bi yëpp te gis nga li ñuy wax rek boo jàngalee ni def ci moom xam-xam mhm. loolu jaamu yàlla bu rëy la ndax tey bëri nañu toog fii di wax ci ay loxoom lañ jaar te boo jaaree ci loxoom du la may dara dina la jàngal avec sévérité waaye dina def sa bopp xam-xam ndax day mhm. fexe ba lim lay jàngal nga bëgg ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay yiw lépp lu mu def ci euh, jour bépp journaliste yàlla na ko ko yàlla fay taxaare ko ci gën kawe hmm. waaw ah, xol bee xaw massa massa comme comme ni nga koy expliqué rek ah mu nekkoon euh, référence yaakaar naa ne yaa ngi koy expliqué léegi tey képp nga xamante ni tey jii euh, alors euh, yaa ngi ci métier bi lii tey bu la dalee di nga am li la yëg bu baax a baax a baax di ko ñaan suñu borom xaaree ko àjjana te bàkk seet naa woo xam yaakaar naa ne xam nga comme ni ñu koy waxee rek métti na mais xam nga rek lu euh, mënul ñàkk moom faw mu am li ci des mooy ñu ñaan ko. Euh, yàlla xaare ko aajana te euh, bàyyi njabootam bi nga xamante ni bàyyi na ko suñu borom teg ci loxo ci barke Seydina Muhammad. amiin bañ a li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi rek. ñu dugg ci waxtaan bi. amiin massa mami Dia métti na trop. Mm-hmm. professeur moom bu la jàngal moom jël xam-xamam moom jox la ko moom kooku dafay féete sa waaju teew kon donc métit la tiis la bu méttee métti mais ñu delluwaat ak santaat suñu borom bu baax a baax yàlla bu soxlaa moom ñëppay ñaan ñu ko ñaanalaat rek euh, ñaan yëpp yàlla na ko fekk fam ne te fam nekk tamit gënal ko fi mu jógee Mamy Tall masa masa yaa ngeen jëf ci ñaan yi mhm. ko bokk képp ku ko ñaanal yàlla na ko ñaan fekk fa tëdd euh, di sàkku ko ñëpp ñaanal yàlla jéggal ko atte ko ci yërmandeem amiin amiin nag euh, ñu daal di maa ngi jéggalu nag waaye mm-hmm. sama xol moo sori mm-hmm. ay image di ma dellu siwaat mm-hmm. euh, muy lu metti waaye nañ muñ yàlla euh, mu mel ni kon si jukki bu njëkk bi gis nañ ne kii nga xam ne mooy usmaan Sonko moom nag procès mu ngi koy xaar muy Adji Sarr ak Mbaye Niang. Mm-hmm. muy ñaari rendez yoo xam ne ci mois de mai bi dina nekk lu metti ci moom. wala mu olof oyof yàlla rek moo xam. Mm-hmm. waaye ñaari rendez-vous yooyu Abdou Khoutia lan ko ci mën a wax. d' accord comme ni nga ko waxee euh, Mamita di la euh, di la masawu ba léegi xam naa ni comme ni koy expliqué nii euh, metti na mais comme ni ma lay wax rek yàlla moom moom mooy moom mooy xool lu ko neex mu def ko. alors comme ni nga ko expliqué foofu laay ñëwee ci procès Adji Sarr ak nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. alors. ñun dañoo xaar dañ doon xaar procès le 8 mai. mais boo mu nekk Mame Mbaye ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Ousmane Sonko. démb ñu jot ci information que ni le 16 bi tamit Adji saar ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Ousmane Sonko dañoo am procès. Mm-hmm. Euh, lu ma ci mën ci wax rek man mooy mu nekk li nga xamante ni. procès bi mu nekk procès bi nga xamante lu am jàmm la parce que ñun soxla nañ aussi tamit démb maa ngi koy wax euh, ci nijaay Sonko bi ma ko invité ma ne ko ñun sénégalais soxla nañ. Mhm. ñu xam fan la fan la dëgg gi nekk. comme ça dafa yàgg. presque mhm. gis nañ ci moor 14 moor yi. Mhm. bëgg nañoo xam tey jii nii ci ñoom ñaar kan moo wax dëgg. ak kan moo waxul li nga xamante ni moom mooy dëgg. ñaan ci yàlla bu ñu ko fekkee mën nañ ko euh, dem normal ñu àtte ko ñëpp xam. te jàmm am ci euh, jàmm am. loolu moo nekk li nga xamante ni moom mooy jàmmi Sénégal. mais mais bu dëgg neexee rek. Mhm. soxla nañ procès boobu pour xam dëgg gi fan la dëgg la. Mhm. waaye est-ce ñoom lan la yàkkamti parce que ñaari procès ci benn weer à une semaine d'intervalle tamit lan la ñuy daw bay daan. waaw si loolu tamit xaw na ma jaaxal lu tax ñu accéléré ko nii tamit euh, xaw na doy waar. Mhm. mais peut-être euh, li ci kanam daal réew li bët peut-être ah, ñun nañ xam aussi. noonu ñu def ma xam ko. mais tamit ci benn côté man dama ciy ànd Mamita ndax dina dimbali kii di Ousmane Sonko mu mën a xam ndax dina mën a éligible euh, en 2024 pour mu nekk candidat mhm. baax na tamit ñu àtte ci àtte ko ci ñaar yëpp mu mën a xam fan la féetee mhm. mais tamit niñ ko accéléré nii ñu gis nii ci beneen côté bi mhm. gis nañ tamit ñu ngi koy bëgg xañ tamit euh, lii di éligibilité am euh, ci ci candidature am en quatre mais gis nga procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko li Abdou Khoudia wax rek daf ñoo tënk. Mhm. te daf ñoo dañoo war a fecc fi ñu toll nii. même bu dee fecc bi sax am na fu mu commencé ndax si à travers audio yi Adji Sarr envoyé MC dégg nañ ci li mu wax ci kàddoom kon moom mën nañ jàpp ni carrément procès bi daal euh, Mamita. Mhm. Euh, mën ñun mën nañ xam conclusion bi mën nañ bañ a xam conclusion bi mais da di yoon pour ñu mën a xam lan moo fa xewoon. te bu dee Adji Sarr lam woote dëgg la ci ni am na ay preuve soxla nañ tamit mu génnee ko ndax tamit jigéen la. nee na dañ koo vi dañ koo violé menacé ko. de mort léegi nañ dem ci procès bi mu mën a génne ay preuve ndax tey kuy wax dara ne nit daf ma doon menacer pour ray ma ak tamit euh, pour violer na ma da ngay indi ay preuve yu mën a certifier que ni li ngay wax dëgg la kon donc buñ ci demee mamita normalement mu indee preuve yi ñu xool ndax dëgg la wala dëgg bu indiwul preuve ndax ñu mën xam ne carrément moom Adji Sarr nekkul ci dëgg boobaa nag dinañ xam ne Ousmane Sonko nañ ko kon yoon la ñu mën a dem ci procès bi ñu àtte xam kan moo féetee dëgg lu du dëgg du yàgg mamita ça tamit procès le huit bii nii le huit moom hmm. mooy Mame Mbaye Niang beeg euh, Ousmane Sonko hmm. foofu moom appel la tey jii nii yow nga ñu ñu joxe verdict condamné nit ki deux mois de sursis ama euh, jox ko def la def ko dédommage et intérêt 200 millions. Mhm. kon Mamita kooku tamit yow sa xol bu si seddul yow jubluwoo ci pour moom àtte ko diggante diffamation ak moom. Mame Mbaye Niang diggante bi diggante moom ak Ousmane Sonko diffamation taxu koo jóg xam la moo ko tax a jóg. Mhm. pour xaj ko ak kam ak yelleefam pour mu bañ a bokk en 2024. man nag dama koy laaj lan lay ragal ak lan lay tiit wala tamit bu dee dañ koo dee mu wax ñu bu moom la ñu xam bu dee tamit dañ koo dig ne boo Ousmane Sonko mii mu nekk candidat en 2024 lan lañ ko ciy jox ak lan ma ko ciy fekk mën nañoo xam tamit mamita ndax tey boo boo wootee ci diffamation ñu jox la deux mois de sursis yi ak 200 millions de dommages et intérêts looy xaaraat ci leneen kon da xaar amende ak plus de 3 mois sursis pour mën a xañ nit ki éligibilité mamita ak nangu këram nee këram tam dañ koy nangu waaye Abdou Khoudia man dama mhm. yaakaar ni ku ne sa der dañ koo tilimal Mhm. ñu raggee ko deux cent millions. deux cent millions waaw der boobu bu setul kañ lay set. ah loolu loolu la ñëpp di laaj parce que euh, comme ni ngeen ko expliqué. Mhm. Euh, ñu xas ba àtte. waaw mu jeex. ak hmm. euh, ba pare dafa génnoon Abdou. bi bi ñu àttee. ba verdict bi génn. Hmm. kii di Mame Mbaye Niang dafa génn. Euh, félicité kontaan ci parquet bi. Hmm. mais danga nga gis jékki-jékki gisaat mu supprimer poste boobu. kon ci ngay xamante ni moom am na lu xew. comme ni nga waxee euh, loolu tamit tamit jaaxal na ma parce que yaakaar naa ni boo gisee comme ni ma lay wax sànq réew mi instant yi dafa am jàmm ñu Sénégal jàmm lañu xam. billaay moo ñu jig waaw aussi tamit moom moo ñu mais bu fekkee tey àtte nga ñooy ñu maam jox la verdict bi jaratul appel. te comme ni nga ko expliqué ñaari procès di commencé am te bu procès amee man bëgguma sax procès di am. Mhm. parce que à chaque bu amee mhm. euh, ay mort da ci am ak ñi tëj ñi tëj ah. seen seen i boutique magasin ah bus yi arrêté dem dikk yi dootuñ demati. Mhm. tey jii am na koo xam ne ngi dëkk ci côté boo xamante